tey mënuloo arriver à la souveraineté alimentaire bu fekkee moderniser ou wala intensifier te pour nga moderniser pour nga intensifier il faut nga am xaalis te gis nañ ne euh, ñi nga xam acteur acteurs filière lait bi dañu am pour accéder au financement parce que banque classique yi veut bu fa dem ne damay élever ana garantie nga ne ko am naa téeméeri nag garantie téeméeri du garantie mais auto garantie la une nak du garantie mais bo Amé sa appartement fale bo jëndal sa bopp garantie la alors nous tax fait ñun 2007 bi crise de bi nous ñu né nañu taxawal benn fonds un fonds d'appui à la stabilisation un fonds stab ñep xam nañ ko pour moderniser en tout cas c'était pour le lait mais gis nañ ba jusqu'à présent ba légui ni éleveurs yi fait nañu jafé jafé acteurs filière bi pour accéder à ce financement donc nous lu ñu corriger la parce que fond bi mew moko ko war moo ko taxoon mais fi mu nekk opération tabaski lay euh affaire yenen lay lay financer ay ganar lay financer alors que c'était pour le lait bon heureusement que temps yi président de la république amna dogal bu mu joxone pour que ñu yok deux milliards cinq ci fond bi yaakaar nañ ne les deux milliards cinq là en tout cas li ci gëna a bëri dina dem ci euh, filière lait bi pour formation bi comme euh, toujours pour financement bi gis nañ président dafa ne nañu indi ren ñaari junni ak ak euh, ñaari junni ak ak juróomi téméri nak acteurs yi ngeen gis yëpp ñu bari sollicité nañu pour am ci mais pour que éleveur bi nga xamné amul moyen éleveur bi nga xamné amul xaalis mun ci bénéficier fonds yi nga xamné ne ñoo fi ñoo fi ñoo fi ñoo fi nak waro nañu mëna financer contrepartie bi nga xamné éleveur yi mom lañu mom lañu mom lañu moom jëlal seen bopp en charge bu ko defee loolu dina gën démocratiser en tout cas affaire bi dina mun permettre ki nga xamné ne amul nak wala am am na mais nak yi ma bëgg pour teg kërëm munu ko am mu mun ko am donc lolu ñu ngi ci liggé également pour jéem orienter réorienter un peu le fonds Stab mais également ñu ngi liggé ak DER pour mettre en place ay ferme pour les jeunes et les femmes ci milieu rural pour question formation bi comme ni ma ko waxee nit mënul gérer lo xamul donc lolu jeune yi il faut ñu ngi leen di former pour que premièrement nous yi nga xam ne mu ngi ñu gérer ba nag yi a rentable donc loolu moo formation bi am solo ñaari pilier yooyu daal mun pour ñu souveraineté alimentaire il faut financement bi tout le monde ku ko bëgg am mais il faut que jeunes yi nga xam ak femmes yi nga xam ñu ngi ci filière bi ci maillon yëpp li production production de fourrage entrepreneuriat fourrager collecte transformation commercialisation du lait ak euh, en tout cas euh, gestion des fermes que jeunes yi vraiment nu mun leen a former.